test tay mi ngi nekk si eh, fanweeri junne nya eh, fanweeri fanweer ak ñaari junni ak juróom-ñaari témèr ak juróom ñett test mom lañu def ba fever bi commencé ba tay koku mu nek suñu laboratoire bi Dakar ak laboratoire bi Nek Kolda ak laboratoire bi Nek Touba eh, ñett laboratoire yi la limbi tol non test li bu xayma li ñuy ci def ak euh, li muy laaj si courant li muy laaj si ni ñuy liggéey et cetera dinañu dikkee fukki junni bu manqué tuuti euh, donc ñun loolu lañuy ñuy dikkee loolu nag tegu teguñu ko kenn fayowuñ ko kenn dañuy xool li nu nguur gi jox ñu booleeg suñu koom-koom wut ay pexe pour mën a def test yooyu pour sénégalais waaw léegi da nga laajte itam ci wàllu suuf suuf si mooy maanaam prélèvement yi est-ce que ñun war bëgg nañu ko partager keneen nga mën na ko séddoo ci wàllu liggéey may wax na ci wàllu liggéey ainsi pasteur amul xaar ma yàlla kenn mbirum prélèvement dafa am ay sart yu ko lal yoo xam ni sart yooyu dafa tegu suñu kaw ni mu tegee si ñeneen saa yu nu nit laajee prélèvement boo xam ne bii yaakaar nañu ni sart yooyu nit kooku respecté na ko te am nañu kóolute si liggéeyam ak li mu si jublu te mu méngoog li nu sant ñaaree du ci am benn problème tous les jours ñu def ko. Euh, feebar bi ci liñ ci xam parce que xam-xam bi leerul ci lépp parce que feebar bi bees la li nu mën a wax li nu mën a li nu seetlu ci ay dëkk yu bare nekk mu nit ki mën na feebar ba ñu génne ko mooy wàlletul deful dara ñu gisaat toog ba ci ay kanam gisaat feebar bi ci moom. loolu ñaar la mën a nekk mooy feebar dombo doomu jàngoro bi ne woon ci moom moo génnaat walla. moom bi mu génne foofu dafa am keneen ku ko wàllaat mu amaan ko feebar bi waxtu yi ñi gëstu si ñaar yooyu la seet lii euh, loolu lu raar la ci Sénégal xam naa ne bu amee benn wala ñaari cas waru ko passé ci li ma si jàpp moo tax loolu fi Sénégal dañ ko war di gëstu ñoo ngi seet ñu ñuy liggéeyal ci wàll woowu léegi nag am na ay dëkk yoo xam ne ni ñoom seet nañu loolu parce que bari nañ ci ay kaa ci ñoom li ñu jàpp mooy li si ëpp feebar bi dafa newoon si nit ki euh, dem demoon ba noppi dellu si waat làqu ba mën ko gis mu dellu si waat ay ci ay fan yu néew afta